salam alaikum. donc dama juste pour appuyer euh, Yakham ci wax bi nga a ni wax na audio Sénégal nit ku taxaw di wax neex ci nit yaakar ni mën nga ci génne non Ousmane Sonko tay ji bi attaqué Mansour Faye di régime bi di weddi ni audience bobu nga xamni tay ji mu ko ci mu taxaw traité Mansour Faye du plus grand menteur du Sénégal Lolo ko traité surtout ko xamne dafa yor njaboot nek, un ministre de la République xanaa Tayji, jii bu fekké ni Lolo la traité Mansour Faye mom moy le plus grand menteur d'Afrique mom Ousmane Sonko. parce que Tayji, jii ci biir audio bi nga xam mom mo gedd gédd ni audience bi amna bay wax ni wa APR dañu graaw donc yalla moko ko vidéo bi tay bi génn kenn enregistré ko mom mo def audio mu yónnee ko ay nit ci biir audio bi mu xamal ni nit ñi ni tey jii li ma weddi woon moom moo ko confirmé waat ni audience boobu am na. donc tey jii bu ñuy jàpp ni le plus grand menteur du Sénégal daf ko traité euh, Mansour Faye moom mooy le plus grand menteur d'Afrique am réew kenn du ko jël ci ay fen ak ay saaga ndey tey gis nañ mu dem Touba. ñëpp yaakaar ni bu demee day ñaanal sëriñ bi mu yàgg fii wala mu wax ay projet ci réew mi muy ñëw naan ñii saaga yónniwu ma leen donc ça veut dire ni tubaab moo ni kii sa sans mort mënoo ñëw lu toll ni màggalu Touba ak ni mu toll ak ni mu rëyee nga dem taxaw fa naan ñiy saaga ci internet bi yónni mu leen ça diir dire ni ay saagakat la àndal saagakat nag gis nga nit buy mbaam mbaam lu da ngay yat il faut que nit ñi jóg jàkkaarloog moom parce que am réew mënoo fee nek jël ben région ci bir Sénégal bo xamni ni ñëpp xam nañ ni région bi dafa sensible ngay jël région bi di ko politiquer taxaw na ay Macky Sall dafa bañ wa Casamance bëggul Casamance té Casamance yow Ziguinchor rek nga gañe boo demee Bignona ak ay yenen dëkk Macky Sall moo donc il faut que sénégalais yi xam ni dafa jóg yor ci ko saytaane pour tal dëkk bi duñu ko nangu nak ay jeune yu mansé ak yow nek ci dëkk bi comprendre li nga bëgg def ñoo fi wa salam merci